la ñuy wax nun teguwul fenn nit ñi suñ leen di dig wala su fekkee dañuy demander intervention mën nañoo demander intervention bis pénc boo xam ne kenn du fa yëkkati sa kàddu lu dul ci ndigalul yàlla bis boo xam ne amuñ fa ci kenn dara bis boo xam ne kenn ku ci ne say mbiru bopp képp lay doy suñ mënee demande intervention kay loolu koy jaru ko ñu ngi fii ñun di dund intervention boobu koy dañ ko demander ci yàlla neel yàlla ñi ma àndal ñëpp. damaa bëgg ñu gudd fan damaa bëgg ñu wér damaa bëgg ñu am alal kem ni ko nit ñi bëggee dama bëgg lépp lu baax waaye lépp lu gën ñu am ko ñi fi woote lépp suñu ñaanee loolu ci seeni ñoñ waaw loolu kay sant yàlla la réew mi dana avancé te dama bëgg it ñu dëggu tey wax dëgg ah su fekkee xam naa comme sophisme bi tamit moom daanaka <laughs> daanaka doy waaye ñu wax loolu sax. su ko defee léegi dëkk bi sax mën a avancé wax dëgg yàlla ndóol gi mën fee jug ñun ñi nga xam ne ñun toppuñ leen ah léegi ñun ñu dem ci yàlla rek comme ñun naka jekk yàlla dogal na ñun moom ci yàlla la ñu wéeru ànduñoo kenn <laughs> ci diine yàlla la ñu nekk ci yàlla képp la ñu wéeru ay waxam képp la ñuy topp yàlla képp la ñu kennal yàlla képp lañuy ñuy wéetalu wéetaluñ keneen ku mën a doon yàlla képp la ñuy wéetal ci jëmmam ci waxam ci jëfam ci lépp yaakaaruñ kenn wéeruwuñ ci kenn wakiiluwuñ ci kenn ku dul ci yàlla suñu borom ñun moom su boobaa ñu des ak ki nga xam ne maam ñun su ñu des ki nga xam ne maa ñu des ak nga xam ne ñun moom lañu nekkaloon bien ba waaye ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñu wóolu ba ànd ak ñoom ba lu ñu wax ñu gëm ko waaw nañ demande fii ci kaw suuf nañ demande intervention ci yàlla boog yàlla lijjanti mbiru gaa yooyu nañ demande intervention bi yàlla su suba yàlla kii mbiru gaa yooyu nañ demande intervention boog ci Sénégal yàlla nag ne suba dañoo xam ne ah yàlla intervention ba nga xam ne su ma ñëwee foofu dama ko fay def loolu nag naa ko def fii Sénégal gii kat sonn nañ tubaab bi kat ñu ngi ñu not suñ lépp ci ñoom la jëm ñu ngi demande intervention nag ñu may suñ jàmm bàyyi ñoog suñu liberté bàyyi ñoog suñu indépendance bàyyi ñoog suñuy ressources bàyyi ñoog suñu lépp su ko defee ñu nit ñu mën a suqaliku ba ñu mën a suqaliku ba mën a raw ñoom seen dëkk yooyu ndax suñ dañoon ci ñun ñu am njiit ñu mel nañu war a mel ñoo leen ni raw fuuf loolu waxaale wuñ ko kon intervention bi tee moo jëm foofu bokk am nañu baatin na tamit am nañu ay tolluwaay am nañu sañ-sañ am nañu nàngam ba mën a judo yàlla ba di ko mën a damm Ah, nañ ko wane boog ci ressource naturelle yi fépp foo xam ne ab mbel la nga fa moo xam mi jamaa wala or wala nangam wala nangam wala nangam ah boog te ñu ko génne nañ def intervention ci yàlla ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi maanaam suñ borom ñoom ñëpp defal leen xam-xam nga xam ne science yi gën a pointu wala boog technologie yi gën a pointu ci àdduna bi ñun ñu maîtriser ko di ko jëfe ca na mu gënee bañ caa benn mbindeef ci kaw suuf lépp loo xam ne xam-xam la bu amal njëriñ nit ci kaw suuf nga xam ne yàlla dañu fee indi ngir ñu liggéeyal ko ci kaw suuf maam ñu ñaan suñ borom mu defal ko sénégali te ñu jëmale ko ci lu am njëriñ jëmale ko ci lu baax di ko liggéeyale yàlla te jëm jëmmi yàlla tax lu tax intervention bi du jëm foofu léegi nag ginnaaw loolu ñu yaatal ko nag ne ko yàlla na ko def ci Afrique yëpp na ko def ci adduna bi yëpp na jàmm sax ci adduna bi bu guerre amati bu kenn nototi kenn su boobaa wax dëgg yàlla guerre dootul am kàcc dootul am li wax fen dootul am sàcc dootul am insécurité bi dootul am rayente bi dootul am jaayante doole bi dootul am waaw lan moo tax ba ñoom mbir yi nuñ koo jëmale fii suñ ko jëmale woon fii kay wax dëgg yàlla nag mu ëppal njëriñ waa réew mi ëppal njëriñ adduna bi ëppal leen njëriñ ñoom seen bopp waaye xam ne lii loolu dañ koy mën a saytu ndax nit ki sa dund daa am fu mu tàmbalee am fu mu yem <laughs> kon su boobaa dañuy mën a xam ndax ñii sañ-sañ ba ñuy woote woo wala baatin wala tolluwaay wala dayoo ba ñuy woote woo danañ mën a xam ndax am nañ ko wala amuñ ko ni moo taxit yooyu xelaatuñ ko ñoom daal ci yàlla lañ koy jëmale ci bis lañ koy jëmale ci yàlla ci bis waaye fii ñu nekk moom déedéet

25e pays le plus pauvre du monde pays bo xamné ñu né à 95% donc 95 vingt quinze bi moom du yokk du wàññeeku mom jaaxal na ma depuis des années non la yokk du wàññeeku à 95% de musulmans ah, musulmans ñom ni ñu koy waxé waye te dëkk bobu soo fa ñëwee li ñuy wax wax lu du dëgg sport national la fi gis ngeen sophisme bi sophisme mom gis ngeen ko daanaka ku ne day ñëw wax say wax yu rëy nangam nangam ngir rek mbooloo alal wala nangam te diñ ko jëmale ci kenn ku dul yàlla nag diñ ko jëmale fenn fu dul ci bis penc man li ma waxoon suñ ñii suñ amee sañ-sañ mais nañ ko wane fii ci kaw suuf nañ ko wane ci seeni ñoñ seeni taalibi nañ ko wane ci ñi leen topp nañ ko wane ci réew mi nañ fexe ba ña leen topp mel melokaan wi gën suqaliku liñ bëgg yëpp ci seen dund ñu am ko ah dañoo am sañ-sañ kay nañ ko wane yàlla mi am sañ-sañ moom lu ko soob lay def mi am sañ moom lu ko soob def te ni ko soobee la koy defee ñoom nag su dee am nañ sañ-sañ kem bi yàlla maa kem bi yàlla am ñoom it nañuy doxee noonu nag te nañ ko wane ci seeni ñoñ ba pare suñ ko defoon suñu réew yi suqaliku na suñ ko defoon suñu réew yi weesu nañ fi kon dëgg-dëgg mbir mi fii la nekk détails yi dañ ko war a bàyyi xel fexe ba sañ-sañ bi ak tolluwaay bi ak dayo beeg degré yeeg niveau yi mais nañ ko wane fii ci kaw suuf nañ ko wane ci seeni ñoñ nañ ko wane ci réew mi nañ ko wane ci Afrique gi nañ ko wane ci adduna bi su ko defee maa mbir yi mën a avancer kenn ku ci ne mën a jëriñu su boobaa danañ mën a liggéeyal yàlla liggéeyin wu gën a rafet. waaye su fekkee ne mbir yi lépp mu ngi aju ci maanaam di wax ne dañuy demander ay intervention ëllëg ñii di wax naan ñoom dañuy ràmmu ëllëg ñii di wax naan dañuy nàngam ëllëg ñenn ñi suñ amee luñ bëgg a wax lu rëy ca yàlla lañ koy jëmale duñ ko jëmale sax ci président bi nekk ci réew mi ndax lii jarut nit ñi xalaat ci wala boog ndax jotut nit ñi xalaat ci te yàlla dogal nit ñu bari ñu ngi yeewu léegi waaye yii nii rek nit ñi war nañ ci yeewu xam système wala technique de communication bii mii lu ñuy wax le sophisme su ko nit ñi xamee su ko nit ñi xamee lii dootul nekk dara ci ñoom te dootu leen tàbbeel te su boobaa ñi koy def danañ ko baax su boobaa ñi koy def danañ ko baax gis ngeen diine yàlla ak nite lay jàngale nite di ñëw fii di wane ay super héros wala ay superman comme xeet yooyu déedéet nite lay jàngale adduna nite moo koy doxal nit ñi dañ leen dañ leen a war a bàyyiloo xel ngir ñu nite olof day wax ne suñuy wax nit nitee tax suñuy wax nit nite moo tax te am na gëm-gëm yoo xam ne am na mbir yoo xam ne ku ko gëm nite donte ñun ñi ñëpp presque jaar nañ ci loolu waaw donte ñun ñi ñëpp daanaka jaar nañ ci loolu ndax da su def soo juddoo yooyu nga fi fekk mais yooyu teguwul fenn ay nax la yu fi yàgg ñu ñu koy naxee jëmewul jëmul fenn jëmewuñu fenn loolu moom mooy problème bi kon dafa jar nit ñi yeewu te suñu yeewoo danañ delloo yàlla la mu moom lépp ndax nañu xam ne bis nañu leer ne yàlla moo wax loolu kenn du fa yëkkati kàddu lu dul ci ndigalul yàlla bis boobu kenn amu fa dara ci kenn bis boobu kenn amu fa dara ci kenn bis boobu kenn ku ci ne say mbiru bopp moo lay doy kon lii ne ko nit ñi xam xam xam na xeetu wax yi jamono da koo weesu jamono da koo weesu ci jamonoy dëgg la ñu toll li jamono di gën di dem nit ñi dañuy gën di yeewu dëgg gi day gën a feeñ kenn mënu ci dara ci jamono boobu lañ tol